البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وهين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا waaye muñ a ngi fi te sëñ Cheikh Tidiane Sy dafay faral di wax ni jullit bu am ku mu ñàkk bu xelam demee ci bàmmeelu yonent bi war na ko ndax yonent bi doyna ci war jullit te yalla dogal na ci mo limuy dogal ci ñepp bu doon dafa am ñu muy tànn di ko dogal ci ñoom am ñu muy bàyyi yàlla am tuuma waaye rek lépp ñëpp la ci yemale ba tax na tabaarakallah Serigne Cheikh may wax toujours ni ma koy wax toujours di ko ak koo mën ñàkk ak koo mën ñàkk xel demee ci bàmmeelu yonent bu dee xel demee ci nga war ko muñ nga war ko muñ nag tabaarakallah nee ko tabaarakallah yàlla na ko leeru mag ñëpp eh, yàlla na ko leeru mag ñëpp ñëpp ci bàmmeelu rëccu lu mu fi doon def yàlla rëccu lu mu fi doon def dafa tabaarakallah ña muy fekki ña muy fekki am na lu ñu mën am na lu ñu mën seen borom ci seen borom فمن خاف من موس جنفا واسما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 فمن تدوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم